jërëjëf mbokk yi ñu seetaan ci wasaare làmb nuyooti nañ leen am kontaan ak mbégte comme niñ leen koy waxale saa su ne rek euh, bisu julli bisu baalu àq la du ñàkk ñu dem ci yenn mbër yi rek donte daanu sax dajut suuf ñu dem ci yenn mbër yi rek xam nga seet si leen seen kër waxtaan ak ñoom julli gi nan lañ ko dundee koor gi nan lañ doon boolee entraînement bi ak koor gi am na ci mbër yoo xamante ne moom xam naa ne mën naa ni wóoruñu sax ci ci làmb ci ci ci ci weer bi ndax Serigne Ndiaye boo gisee état bi nga yor macha allah nga xam ni ah bu dee mu ngi doon woor de yàlla rek a xam mbër nuyu naa la. waaw ma lay fay ba jëlee. di la bu baax di nuyu waa Wassare di leen bëggee nuyu suma mbokk yi bu baax di leen baalaax di leen baalaax di nuyu suma mbokk mbër yi di leen baalaax tamit xam nga di nuyu suma village waa Ndiafat Séeréer Ndiafat Escale Ndiafat Bërut ak Ndiafat Socé ak soixante-quinze villages yi leen wër yëpp di leen baalaax bu baax waa Bawol di nuyu waa Ndar suma papa ñu fa nekk di leen baal wax bu baax a baax ak suma famille waa golf yi xam nga di leen wax bu baax suma waa Ikiri ku su ma nee suma papa Tafa Gueye père Abass Ndoye suma entraîneur xam nga père Seck père Socé père Gueye Camara ak suñu nouveau entraîneur xam nga père Kati di nuyu Fabrice Allo bu baax di ko wax père Ali xam nga suma coach le grand Max Bodi. di ko baal bu baax di la ñaanal bu baax baax parce que xam nga ak mbër dafa métti quoi. Hmm. di nuyu waa Medina nag surtout. da nga leen a baalu àq sax nga leen àq. bu baax a baax billaay bu a baax xam nga waa Medina gi ma juddoo yoroo fi màggee fi xam nga hmm. xam ne 24 24 ñoo nekk ak man. Hmm. di leen baal bu baax suma gars yi ma àndal làmb tam surtout. waaw ku si mel ne ñoom Baye Abdou Kabandoski xam nga ñoom Zal Bada Ousseynou xam nga Obala Mam Samba Momar Lamine xam nga di baalu àq ñëpp dina ñaanal jàmm yàgg fete yàgg fete daal. ki nga tudd léegi Baye Abdou Kabado si xaw ma mooy paa bi ngay àndal wala du moom. waaw moom paa la. waaw mag la de. Ah, du xale la waaw Baye Abdou su la ma ne Baye Abdou. Kabado si bi mooy lan. Kabado la Kabado <laughs> ah, ah, dundee ci koor gi ak entraînement yi mbër moo xamante ni am nga combat mais amagoo dara. waaw koor moom ni mu koy dundee moom mooy. kon ni ma dundee sa koor rek wax dëgg yàlla su ma xëyee suba midi dama dem salle maintien tuuti après guddi gi ngoon gi ma dem équilibre ngoon gi équilibre après guddi gi tamit incha allah ma demaat géej quoi loolu laa ko jàppoon waaw noonu la baax na ci sa santé. waaw baax na parce que ma jugee salle damay nalaw nalaw ba 5 heures 6 heures ma dem équilibre. Hmm. maintien rek mais entraînement yi du nekk entraînement yu intense quoi da ngay maintien rek. bañ forme bi naa ak yooyu ko vraiment mooy ni def sama coach yi yëpp ko ci mel ni Perjo xam nga di jàmm ak famille yëpp vraiment di nuyu tam perkate bu baax di ko ñaanal yéen bu oyof lool vraiment ak sama papa Tafa Gueye. sëñ Ndiaye da nga am sa médecin bopp. Ah, waaw. waaw ah, médecin fu mu nekk. non mu ko ba xam mun nga woor wala yu mel noonu wala doo ko def. waaw non man yëpp sama semaine. chaque 15 jours 20 jours chaque un mois ma dem sama médecin mu xool sama yaram. ma siy nuyu sama papa Tafa ak itam bu baax. waaw ak Fabrice Alouche joué nañ ci lu bëri bëri Fabrice Alouche di ko nuyu bu baax. ma coach ak Grégory Chaplin. Hmm. nga sama fils ah. ndeysaan booy bi léeg-léeg ak Greg. Ah, Greg waaw Greg moom depuis Miami quoi. ndeysaan hmm. euh, Serigne euh, bi ñuy mujjee euh, gis Serigne Ndiaye. arène nationale la woon. nga ñëw fa keroog gis nañ li nga wane. dañ nga bëreeg franc mu daan la. ñu déggoon ni euh, ci jël boobu nga ci daanu woon da nga amoon ay blessure blessure yooyu mën nga ko dëggal wax blessure wu lan la. mais sant yàlla rek que xam nga moom boo nekk sa nawle ngeen di jàmbaarloo xam nga yàlla dool moom ndam sa kaw doo si mun wax dara loolu di ko féliciter rek di ko ñaanal yàlla ndam lu jikko xam nga carrière am rafet. vraiment comme ñun tamit ñu ñaan yàlla yàlla dafa ñu carrière bu rafet tamit vraiment mais ñu ngi sant yàlla bu baax daal vraiment ñu ngi sant bu baax continuer suñu mbokk ci déglu Mhm. mais blessure blessure la. non moom du ma ci mën wax dara loolu dama koy ñaanal moom yàlla dafa ko jàmm. non mais blessure blessure foo maanaam. ci wax damay nekk di. liggéey gaañu woon nga. waaw dañuy liggéey rek sant yàlla loolu ma ci wax du ma ci sori sant yàlla rek lancer mooy li am solo ba solo mooy maa ngi samay entraînement mhm. samay mbokk loolu ëpp solo mhm. boo déggee nit ñi ñu ci bari naan euh, Franc bête noire Serigne Ndiaye 2 la euh, di ko mën a dëggal. non non man bête noire amu fa Franc ay ay ay ay naataangool dañuy daanante rek. lamb ji kenn mu da nga ñëw tey mu ma daan suba mu ñëw mu daan loolu sport quoi vraiment su ma ko daanee dina am lu ma ci rectifier su ma daanee dina am lu ma ci rectifier sport la rek hmm. dañuy foo dañuy bëri kenn mënul kenn hmm. ku suñu borom dimbali moom mën quoi vraiment dañuy ñëpp dañuy foo rek hmm. sport la kañ ngay tooyalaat xaftaan bi wàccaat ci lutte traditionnelle yi parce que ñu ci bari xam nañu Serigne Ndiaye lutte traditionnelle yëfam la. waaw donc instant tool moom wax dëgg yàlla xamuma dara ay mbokk laa am ak am di jàmm vraiment ñoom laay déglu rek vraiment ku si ñu xool ba xam exactement su ma nee acca rek man acca man samay entraînement la gérer ma saa su ne rek déglu suma gars yi ma nee acca man acca. Hmm. sa combat yaag sa costume taxaw na ah, Habib Lacran moo ko tëgg mais ba léegi euh, jàppoon na date mais sa adversaire daf ne moom parewul est-ce que yow parewoon nga. moom man déggoo ma de man ma ñu jàppee xam man combat bi nga jàppee le juin non ñoo ngi ko yóbbu le 21 juin ma ne dafa sori. xam nga ñu bëri mere ma si ne ma waroo waxee noonu ma ne leen si parce que sport sport may def man maam carrière la ñor bu ñu gérer war nañu bëri chaque année deux combats trois combats waroon naa bëri Sokocim bu yàgg mu ko mais bu nee parewul tamit du ma ko si balaamee dara waaw mu pare xam ne ñun ñu ngi koy xaar ay ndaw lañ waaw amul lu mais tamit nag ñu ngi xaar yeneen combat yeneen avance parce que moom bu nee parewul te yow nga pare bëgg a bëre est-ce que promoteur bi libéré na la pour boo mënee gis beneen avance nga jël ko bëre yaa Sokocim ngeen xaar ba tey. non moom moom lépp lépp rek lépp rek man pour dire vrai ci promoteur bi la rek. parce que nit moo jox sa xaalis sa pare war a bëre mu ne pare ko nga toog di ko seetaan man kenn ma taaral ci détail yooyu parce que carrière bi laa yor ma gérer tax temps bi xaarul kenn xam nga damay war a def suma carrière avec la manière xam nga comme làmb 45 ans nga bàyyi làmb te boo seetee bañ duggee si làmb ak léegi yàgguñ si yenn yàgg yi mais mm. il est temps tamit ñu positionné wu si làmb toll fu nga xam mm. avance benn avance at ak vraiment pour man du du du yëfu sportif quoi hmm. vraiment. Hmm. léegi nga jël avance de Sococim avance boobu moom fala bu da di ngeen ko bëri yéen ñaar léegi ñu ñëwaat ci yeneen combat bu ñu bu ñu bëggoon sa yeneen combat say adversaire ci làmb ñii nee nañ adversaire u Serigne Ndiaye xaaj bi am nañ combat ñii nee nañ am na ci ñu fi des ba tey yow ñan nga jàpp ne ñoom war ngaa mën a laal ak ci ñu amul combat. moom moom wax dëgg yàlla man instant du ma nekk bi di cité qui su ma bab tawaagee ngay mooy waxal samay combat man maa ngi ne xale laa la laa mbër laa amoon lu làmb entraîné lay def lekk tëdd na la wala ku ma làmb boole damay bëri ak yow incha allah rabbi. su ma ñett adversaire di nga bëri ak ñoom. man xaw ma man na avance teg ko rek fu mu nekk nii ñu dat ma xam kañ lay bëri la reste moom ay ak mu nekk. Euh, Elton. bu ñëwee baax na. Elton ñeme ngaa bëri moom. ah yow tamit nag fii yow tamit fii booy ñun ñun ñun. li wax waaw très bien <laughs> mu wax bu may nag ñeme naa bëri Elton moo tax ma ne la fii parce que loolu moom loolu du wax joo xam ne wax ju wax ju tegul si temps la quoi man làmb ji aw ma ku ma ci dellu ginnaaw ku ma ci bàyyil dara. lu indi doon avance Elton léegi ñeme nga koo jël. instant instant ñu ngi ñu ngi corté fu nekk nii corté weesoogul la bu ñëwoon léegi moom laal ñaari xar léegi léegi feetoog sama gars yi. waaw. les deux gëj nañ koo gis mu mu ñëw ci làmb est-ce que pare nga pour bëre moom. waaw les deux suñu grand la bu ñu taalee loxo tam dañuy jël la vraiment waaw bu ñu joxee loxo jël la waaw vraiment loolu moom day nekk lu ñu gënoon parce que ñoom suñu grand yi mooy loxo. vraiment gëj nañ ñu bëre mais ku ñu taal loxo jël bëre rek vraiment ak respect nag quoi ak respect. ak respect. Mhm. Euh, tey buñ fi ñu nii bu ñu indi woon yeneen ñaari mbër parce que boo xoolee ku mel ni booy fay actuellement lekk na avance jam production ba léegi ñu ngi koy wutal adversaire amul bu ñu la ko indiloon dinga nga bëree moom. non boo fee santoon du yàlla boo fee santoon moom na na na mbër. yaa ko raw non pas raw de ah, boo nee euh, mu tudd naa Elton nga kontaan. ma tudd les deux nga kontaan ma tudd Boy Faye nga xaw ko sous-estimé. waaw non du si yàlla tere mbër presque quoi man kenn ñëpp ay nawle lañ. comprendre ñëpp ay naataango ay naw lañ comprendre te ñun dañuy joxante cër suñu biir man du ma suyee sama kenn parce que koo fi lekk lay lekk li naan lay naan xam nga ñun ay lañ ay doomu aadama lañ xam nga nga nga am pap maam pap donc du ma suyee sama kenn. ci làmb ko foofu la. Boy ko quoi. na na am beneen combat bu nooy yàlla dafa rëcc ndam quoi man moom. kon de ku bëggul Boy Faye boobu su ma la waxee Limousine da da boole. Limousine talul gisal biir bi. biir. yaa ngi attaqué ku bëla toon. loolu dara naka nuyu baax di ko ak le nouveau président. actuellement nii Fass xam nañ ni euh, bu lëndee incha allah activité làmb ñu bëree bëri dinañ ko mais rawatina écurie Fass. bari na ay champion yoo xamante ne am nañ ci combat tey ñu gis ni actuellement fi mu toll nii cumuler contrat dafa xew. Mm. est-ce que Serigne Ndiaye pare na pour cumuler ay contrat. ah mais loolu liggéey la rek. kan moo koy liggéey. ah koy liggéey sama staff ak sama papa tabac yooyu yëpp man entraînement laa am bi ma joxoon gis avance sax dem bëri ci àll bi te kenn joxuma dara xam la am quoi vraiment yaa sa sa fere dem bu yàlla defee nga jël xayrum boo jël hmm. jox la avance yu bëri na la avance yaa ngi nii bëri la diw bëri a ay preuve ci làmb dama a dama amee Fass bor amel waa Medina bor loo xam ne gars yi dañ ko nam moo war la ko indil xam nga donc loolu man dara war ma lu bëri dara waruma lu entraînement bëri ay relevé yoon da nga ko war a defi ci àdduna yu bëree bëri bëri bëri te liet naa am na combat diggante ma Balla Gaye te bëri woon nañ Balla daan ko mu am na mu demee jour boobu yaakaar naa ni ngemb bi mu ngemboo sax kenn mësu koo gis ci Gris Bordeaux nee nañ ngemb boobu sa loxo jugu ci bi yoon loo ciy def lu ma mën ak lu ma mënul kilifa la c'est le de Fass suma grand la suma kilifa suma lépp la soo amee combat suma bakkan laa si teg bépp mbëru Fass ba mu combat suma bakkan laa si teg parce que sama famille la ñoo bokk ndey ñoo bokk bàyyi Fass saa ñëpp am nañ combat ñëpp am na combat ñëpp xanaa PAM doy mos amul combat te maa ngi koy may ko ñoom si ndam Fass ku si am combat yàlla yàlla may ndam. est que yomb na mu jël Balla Gaye 2 war a génn ci combat bi moom Gris Bordeaux. Gris athlète la te lu coow yu bëri bëri bëri bëri bëri bëri bëri hmm. ku xam Gris Bordeaux dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg xam ne Gris c'est un bon athlète hmm. waaw sportif la laa ma ji amul nag. combat tey boo ko doon conseillé ban méthode la war a mën a jël en tant que mbër pour bëre combat bi da koy xeex wala day bëre parce que gars yi gëj nañoo gis Gris mu mu daan ak manière. gëj nañ ko ci làmb. non Gris moom wax dëgg yàlla moom dépassé na fi ñu koy si làmb man lu ma koy ñaax mooy mbër liggéey rek. ma koy wax mu ne suma grand frère ma ne ko liggéey rek liggéey ñu ngi nekk xam na ne boo liggéey sa yaram dëgg-dëgg loo mën am ci yow la te wóolu nañ la tamit am na ci yow yaakaar bu baax waaw. Lac Rose am na ko combat. ndam rek moo frère incha allah ndam. ndam daa yombee noonu. ah mais liggéey rek donc ñu ñaan yàlla xam nga tey tey boo jiw dara da ñaan yàlla suturaal dafa la si ndam ñoom su may grand lañ muy Forza muy lagros muy Gris 2 xam nga muy. ñeneen ak ñi nekk face ñëpp ku si nekk am combat dama ñaan yàlla may la ndam. ndam lu rëy loolu mun wax. est-ce que vrai Lac bi ñu doon gis. actuellement nii gis nañ ko ci làmb parce que ñu bari nee nañ Lac Rose Lac Rose ba woon. est que Lac Rose boobu mu ngi exister ba léegi. waaw ah, mais pourquoi pas pourquoi pas Lac Rose tey ndaw la blessure ko téewoon mais sant yàlla bu baax parce que làmb làmb blessure ñoo ànd lamba jafe-jafe ñoo ànd. Hmm. xam nga tey bëri na ay champion ñoo fi nekk tey doon bëri tey ñu nekk ci ay jafe-jafe. bisu Balla Gaye 2000 tey tolloon si ay guddi yoo xamante ne tey métti woon si moom trop mais instant mi ngi sant yàlla xam nga suñu borom bu lu bëggee day teg ay jafe-jafe mais ni koy yàlla jafe-jafe mu nekk nii moom mu génn si yàlla dafa ko ak ndam ak bépp mbëru Fass bu fa nekk yàlla dafa ñu ndam ñëpp ñu bokk ndey bokk bàyyi xàccandoo doorandoo. Mhm. rendez-vous. maa ngi déglu daal. déglu maa ngi déglu daal maa ngi déglu daal fi nekk nii su ma amee ay combat bëri su ma amee combat maa ngi tëggee sama ñàmbur. instant boo jàkkaarloon sa ko sim muy jàkkaarloo di la message boo koy lancé lan la. monsieur Six man ma koy balaamee ah. message boo koy lancé la amul ma koy balaamee loolu di ko baal ak di ko baalu ak si julli yi ak Korité gu ñu jugee lépp nga xamal ne daal na waaj bu baax comme nee na pareegul saa yu paree baax na mbër ma nga lay siyaar ak soxna bu baax. mu jël temps non na jël temps bu baax. Hmm. Hmm, na jël temps bu baax a baax. Hmm, sa jaajëfal baax a baax. waaw di am kontaan ak mbégte si yow nag vraiment waaw parce que sonal nga waaw yaa may defal lu ne. daf may fekk sama ma parfois da nga def interview mun munoo ko bañal parce que xam nga rek ni ku baax nga vraiment ko macha am nga am nga fi nga yem ak mbër yàlla yàlla jàmm ak si cameraman di la baal àq di la baal wax tamit si julli gi di yàlla defal jàmm xam bala at bi di ñëw yàlla sotti lépp may la soxna su baax waaw soxna su la yërëm soxna su la déggal ba ak Seydina Mohamed yàlla sàmm ñëpp ak sama gars yi nag xam nga di nuy suma famille nag bu baax a baax a baax baax suma famille maa ngi nuyu ñëpp di gërëm ñëpp di nuyu ki ko xam ne yaa ngi may jàppale rek di ma ñaanal maa ngi nuyu suma yaay Gërëm Dieng maa ngi koy nuyu baax di ko gërëm xam nga di nuyu képp ko xamante ne mi ngi bëggee Serigne Ndiaye numéro 2 baax di ko gërëm di nuyu suma papa Tafa ak yéen di ko ñaanal mu yàgg fi lool yàlla may ko war suma turandoo Serigne ñëpp di bëggee ñëpp jaajëfal hmm. jërëjëf mbokk yi seetaan wasaare làmb gis ngeen ko Serigne Ndiaye 2 la xale bi nga xamante ne bu jógee fas Gueule Tapée Médina gépp dañuy jóg ànd ak moom message bu am solo bi nga xamante ne wax na ko ñu koy jëfal bu baax ci xel mu sell mi di wane ni làmb saa su rek bu mbëri waxee nga gis li ñuy dégager nga xam ne vraiment ay responsable lañ waaye niveau bi mu ngi gën di yokk di leen jaajëfalaat bu baax mbokk yi di leen tàggu ci tàggoo bi nga xamante ni moo du tàqaliko ba la incha allah ci beneen xew-xewu làmb jërë ngeen jëf